waaw ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci jàmm baax alhamdulilah naka foofu. waaw waaw Sénégal de mu ngi nii di tàng rek xam nga tàngoor jamono ji moom mooy lool. waaw waaw waaw ñu ngi waaj tabaski bi moom xam nga tabaski bi moom day euh, day événement sénégalais moo tax xam nga rek buñ ci toll mooy lool. oui. waaw baax na nuyul ma xale yi ak euh, soxna si bu baax kontaan naa ko fi jaajëf. ñu wax téléphone ba ñàkk ni ko raw su nga tàng rek sama waaye moom doon woo walaay xam nga rek gars yi moom mooy loolu hmm. mhm, mais yaa ngi ci di tàng rek tey moom sama bi dafa tàng xaw ma li courant bi coupé moo tax xaw ah, mi daa bari de war nañ cee wax tamit de ah, lii doy ndox mi surtout ndox nga xam ne dafa bokk ci doomu aadama ñuy kopp ndox mi bi di coupé rek ah. waa chéri waxuma loolu lu xewati waaye xar xar bu nganda laa nag xam naa ne yow moom. xam sa problème. bàyyil su ma tëddee di dalu nga may wax ay waxut tabaskeeg waxut koriteeg waxut nangam ak nangam tabaski gi des na ay fan. mais tàmm nga saa yu ma tëddee rek foog nga ñëw déranger ma quoi loo ci am rek nga xamante ni lii nga ci am. yow korité bi lii nga ma waxoon tabaski bi encore ngay osé di toog di ma waxaal wax ju mel. gis ma nii may xëyee ko wàcc rek nga bëgg maa teg ku yor lu dul jeex. yow ñuy ñëw nga leen di may ndimbal ci kër gi nag yow paaw paaw dugg fi meeroo meeroo dugg fi nga yëkkati sa xaalis ak lu ne ngay maye di maye ay saako ceeb yow nga ne mënuloo sa jabar dara depuis julli bi ba tey bu mu desee 3 mois ba tey chaque jour ma lay avertir di la wax di la wax di la ma ay su ma amee jox su ma amee yow xanaa fas yéene woo bu ma énervé man yaa ngi may commencé sonal sax a waxu tabaski ak waxu xar yi bu ma sonal su ma ko amee dinaa ko def moo ko amul duma ko def dimbale ma waaye ah. mais docteur eh xoolal xamal lu ma lay xamal que ça soit la dernière fois nga fekk ma toog nga may wax ay waxu tabaski ak wax ci. yaa dégg boo baax na boo gisee xar baax na boo ko gisul nga sombi lekk. waaye jëmm la yéen. fu ñu la fekk yaa ngi wax rek nan la. waaye daje ak docteur. daje naa moom mooy xaabar xaabar di dem. docteur de laa la wax waxu julli bi ne sëbaat eggalee ma sax mu bëgg maa màtt yuuxuma ba kër gi di riir. waa kii moom tabaski bi moom mbaa duma teg gàcce ah xanaa nga muñ rek séer li lay wax daal nga muñ rek chaque jour ñii ñi di ñëw fi di ñaan ndimbal mu yëkkati di leen may ah. kan mooy dugg sama kër gi naan yoruma njaboot bu ñu tekkee dinañ la ko jox ndax liggéey ndey añub doom sonn naa du dëgg sonn am nga sa ay dom. moom bu la defarul say dom suñu màggee defareel la ba pare nag gis nga borom kër yi rafet yi ngay gis ñu tabax plus 3 wala air plus 4 duñu dara ndax foo leen fekk duñu añ duñu reer bu ñu ndekkee sax duñu añ dañ koy koloo koloo ba ba am ko kon yow yaa ngi sant yàlla santal yàlla bu baax a baax a baax soo amul nga dem si sa càmmiñ yu may la damaa sonn ci ñaan bi ndax chaque jour mënu ma dëkkee may ñaan di ñaan di ñaan di ñaan man damaa sonn damaa dee damaa tàyyi korité bi nii la tabaski bi tamit nee na naa toog su amee baax na su amul baax na damaa sonn nag maman damaa sonn ne sama kër gu yaatu gii su ma génne ñu naan jabar diw ak ne di ma joxe maa yàlla rek ko xam waaye feeñul si yow de sant gën a la sant yàlla nag loo sant yàlla doyul moo ma bëgg ñu ànd sama kër copine be nga soulager sa bopp am sa àjjana du dëgg. ma am yow man xamee ma ay dox ak yooyu. séeri boo fi toogee guwaatar ngay am te jigéen ñi léegi lu leen ko teg naqar si la bokk kaa ñu dem rek nga soulager sa bopp. ah nga dëgg nañ dem. sama xarit nga. gis nga de daara jaa ngi nii. madame bi ma la wax a ngi nii. Viviane man de rek la ma jox. Viviane. dama ne la ba gars yi wër équipe man damaa dem tànn Barça dem dëkk fa. ah kon am nga équipe. cum kii mooy jekk neexee laa lay wax. gars yi di wàcce xar yi ak saa bi dañuy am ay façon race ay laadum ay bali bali ay façon bu ne mais laadum baa ngi fi wala xarit bi cum doo ci wax ah ki xamal. en tout cas balaa ngay def dara man moom kër gi toj naa ko. Ah. xarum 400000 laa fi wàccee. ma la wax lak yap 200000 muy ñaata. dëggal ma loolu muy 600. bu ko xale bi jarul rek waxuma jëlaat sama xaalis dem ñibi ki bayyi loko defal sa way jar na ko. na mel ni na xar 600000 mom ma la ko indi ba eh, fi ñu e way di waaye li lijjantil so bop rek ba ma man 600000 fi mu nekk lu melni la doon wër. len de xamna ko bu démb doon tayde de du ma takk aawo damay continuer tout droit dem tak ñaareel. Dia mau dak daq sa aaw wax mau fa Dek day moromam. dëgg neex yàlla ya, waaye sa aaw bi tamit mun naa ceeb dina kay. ndax day di jaay jën. te yëre mi jaay jën bu ñëwee moom lay xet di bëgg a rey. mu indi ko kër ga xoolal xale bi rek bu booy ree ko. yegg si nañ. waa jànk. waaw maman nu ma la ah, dafay yaa am kër David bi ma ne ko Aliou baba ko mën naa. waaw maman. muy laajte Fadé mooy nga nii. waaw dama coono maa ngi. yow ngeen ne. ça va yéen a ngi ci jàmm. Sande. non papa nii sama copine bi la àndaloon ma ne ko xaaral ñu ñëw soulager fii la chéri ça va. ça va bien yaa ngi ci jàmm. waaye ça va ma yi. ah kii nag mooy sama copain bi kii mooy wàccee kër gi ba muy zéro ah. ak dëgëreem kii de ma jox xarub laadum bu 400000 tegal ma ci 200000 bu may lakkee doomu nag góor a góor xanaa Facebook la ko jaarale wala Snapchat. maa ma bëgg wax foofu. <laughs> na ko jekk ba ko gis kanamam gu rong yi mu yëy si ngom ba ay ŋaamam taawee mu mel ni ku xorom te xoromut bakkanam bi mel ni paatu paanu mbalit laa xam ne luusa nga ca xool ko kanam gi rek mel ni ko kattu ne laa yow merci rek ma xam nga ne kii mooy jëkkëru kii. jëkkëru mooy jëkkëru kii. chérie. du la wuyu. yow man avant ma ñëw si yow dama ñëw si jom ma pare yow jom ku ma bett nga. yow ah dëgg la kay yow su ma demee bay génn nga jël sama volet tëdd ci ne ma du ma dem teg ci sa bakkan ah yow sama futa yooyu noral nga ko sama matelas bi wàcce nga ko yow ginaar fu mu gën a baaxee ma njoñoon la njarum soow fu mu gën a baaxee ma jox la ndox mu sedd aussi noonu nga ne yaayoo yaay te dangaa war ñëw di ànd sama jëkkër ñëw di doxante yow yaa ma bett yow awma lu may wax ak yow te bakkan bu gudd yow merci rek yow nit ku baax nga yow sëykat nga te mosoo caaxaan yow dama koy wax sa kanam wax ko sa ginnaaw kii nag yàllaa ñu boole tey daf ma woo ne ma naa ko ñëw gunge fii daa am ay mesures yu muy jël fii ah maanaam daa am lu muy ñawal ñii ñëw fi di jël ay mesures loola ma indi fii maa ngi nii waaye yow li nga mën ca kër ga wallaahi mun naa seede lépp parce que xam naa ne yow kenn ñaar ñii laa lay xoolee waaw maam Faa Wade ak maam Jaara Buso parce que sëy nga wax dëgg fa yàlla te kenn mësulaa dëgg bu ñu joxoon sax yow merci laa gëm nelaw ndax dee. gis nga ne sa kii ba mu fi diggee sama copine bi jox jëndal ko xarum laadum bu 400000. Mm. ak 200000 yoo xamante ne moom lay laqee yàpp <laughs> moom mii di xaritam bi xam nga xaru ñaata la ma dig. bu mm. 600000. soxna ci xam nga ni lool waxtaan gee neexoon rek mo bëgg ci sappali loolu yow lay waxee sa loo koy guddi am cat yooyu. waaw dañu naan sàmba ala àll jéeri. yow au nga dakk mu dugg sa kër ngay dakk mi dem ci àll bi gis nga soxna ci man de au lieu nga ñeema mi man maa la ñeem yow mi nekk gel am xar bu 400000 ñu jox la 200000 pour lak man ne mbote bu tuuti sax mbote laa la wax sax aw man yeguma korité yëguma tabaski yëguma trente benn fête boo xam ne jeeg dina ko sentir ci biir këram man awma ko doguma la yàlla bu la dee dog gis nga nit di ko ñee fekk na ma ngay dee nga bañ a am dara te tey dund moo gën nga am dara te dundoo nga tabax R+4 chaque jour ñu lay duma guddi dem bëccëg nga tabaxal ma adduwaas dugal ma ci dama dundal moo ma ko gën a genre góor ñii nag moo tax nit ñi bañ góor ku ma ñeewul sa aawo mm-hmm. tëdduma ba gént sax di nekk sa ñaareel kii man maa ko jël teg ko na la suur ko man li tax ma naw góor damay xool aawam ba pare may doog a dugg ci moom mm-hmm. te yow dama laa naw biir nag mm-hmm. waaye yow maasee xam naa la si fulla xam naa la si fay fayda loo am yaa ko liggéeyal sa bopp ba tax na 400000 xar yi mu la jënd damaa bëgg nga jël xar bi jox ko ki jëlaat 200000 yi daal di ko koy delloo mu am lu mu yére yu mu sol gis nga genre góor yu mel ni ñoo tax kenn bëggul say. te boobu na sa xel dal ndax yow xam nga damaa gëm sama bopp. dafa leer fierté sama bopp fan sama bopp. Mhm. naw sama bopp it. 400000 mhm. yooyu dama ko koy jox xar mi dama ko koy jox bu tëddee na nelaw mën naa daagu ndànk njaab njaabam dem toog ci biir këram te xam ne lépp dina ko fekk ji. on ko mu ne xudd ni yow amoo loo wax tey yaa ngi mel ni mu ma àngale toogal rek yow. di xaar résultat dégg nga amoo benn jom boo ñëwee sa semise ci biti nga koy fee ñàkkatu jom yi nga doon xoole kii moom mel ni xiin bu fomm. yow xaw ma la la mais fen nga mën mais suñu demee dinaa yow xaar rek. mais nii rek def pour defar tamit xaw ma ci dara. yow su ma defuloon nii sëy bi mun na fi jaaree. xam nga ngeen moppi te ngeen jug abal ma ci biir ngeen di mel ni soo jamono bu yàgg ba kii di mel ni Aline Mbaye de kii di mel ni Fallou Ndiaye ngeen a jóg def.